Akalang mooy yoon bu mag bi nga xam ne mooy jokkale Lower Ñoomi Upper Ñoomi ak Jokkaadu ak li nga xam ne mooy dem ba ci yeneen fànn ci North Bank Region yoon bi dina dem foo xam ne ñu bari xam nañ ko di Kunta Kinte Island e, nekk ca Jufure yoon bu am solo bii de su dee nit la mu ngi mel ni bakken la pour fukki dëkk ak juróom yoo xam ne ñu ngi ci tund googu leen e, jooree ko fii nga xam ne moo di Buñaadu dem Jufure continuer ba ci tundi Jokaadu soo buggee dem fi nga xam ne mooy Baara it muy gën a gaaw bi Gàmbi amee boppam si loxo tubaab yi ba tey su nga xam ne ñooy tukki di jaar ci kaw yoon boobu dee dina ñuy am jafe-jafe bu mag ci tunda googu leen li ko waral mooy yoon yu bon. yoon bi buñ ko liggéeyee diggante siñ lëkk ak baara mën nee na xëy jóge siñ lëkk dem di hooju fa ci fekkee liggéey neen ko ndax baara soreewut ak suñ dëkk soo gisee jafe-jafe bi xam fi yëpp yoon bu ñàkk a baax la pour wecci loolu isi commencement bu ees si dem ak dikk ak yombal tukki ci tunda googu leen président Adama Barrow samedi ñaar fukki fan ak juróom-benn dina teg xeer bi nga xam ne mooy xeer bu njëkk bi ñoo liggéeyee yoon boobu leen lii nag dafa mootal li nga xam ne mooy lim digoon nit ñi nga xam ne ñoo dëkkee si tundi ñoo mii iñistiɗo ɗenare fof ni ga ala tentuɗ nittigoye momuta kabo albireɗa fo yesew guruju garaji rakaji rakaji fo janimari ɓe futal nittigoye momuta nema kunkulapitano fanan to ten nden ambulance ɓe jeele bat ambulance ni aja ala ɓoroɓe diyale mano ani siɗole ɓeteya bari ni mano manque siɗo man ɓeteya babukatano bar ñi siɗo ni woɗeɗa taw foga fo alaya barka ga fo alhamdulillahi rabbil alamin ga ala tentuga ɓaro tentuga jaayi